alaykoum mbokki internet yi yéen la ñu ak bu baax tey nag ñu ngi teew fi nga xamante ni moom mooy Afia 4 mbedd Fass seet si artiste bu mag ndaanaan koo xamante ni nii su waayee rek nga kontaan ku mën bis ñu koy wax Modou Soumboulou di waajal na xew-xew samedi le 14 décembre 2019 fii lay xewee fii ci Afia 4 surtout fii ma taxaw sax ci mbedd bi waaye man maa ngi ci koñ bi mais xaw ma nag fan la dëkk ci koñ bi ba tax na rek damay xuus def nii xool kan moo ma mën a teetal fi nga xamante ni foofu noonu la Modou Soumboulou nekk topp ma ma daal di xool kan moo ma mën a euh, wax fi Modou Soumboulou nekk xam naa ni maa ngi ci Euh, koñ bi waaye a ah, gis naa benn xale bu jigéen de euh, soxna si maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fekk ci sa connexion ah. jeex na tàkk mais damay laaj ci artiste bi ñu wax Modou Soumboulou euh, amal anniversaire samedi 14 décembre fii lay xewee mais xaw ma fan la dëkk danga ko xam. ah Soumboulou waaw fii la dëkk artiste baax bu am jàmm bëgg waa koñam macha allah waaw mën li muy def nag. yow da nga koy bëggee mais xam nga ko aussi. waaw xam naa ko. pour yóbbu fu mu nekk. kon jeex na tàkk mbokki internet yéen ñi safoo seen xew-xew ci ay rubrique yu am am solo top leen ma bu ko defee mu wax ma fi nga xamante ni foofu noonu la nekk euh, nii rek lañ koy defee saa su ne euh, mais euh, sori na wala soriwul. soriwul kër gii rek la. Ah, kër gii rek moom heure bi lan lay faral di def. expérience ay day dem répétition ay répétition waaw doon daanaan daal waaw kon ñu dugg fekk ko nga lay faral eh, di di nekk di fi def di fi làqatoo xam nga man moom maay découvrir gars di leen seet ay ca ñu ne ça va na ngeen def ça va bien si ana Modou Soumboulou génnal nii génnal nii ana Modou Soumboulou ci jàmm fan la nekkee fii fan la nekkee fii néeg bi yow lanam nga koy béggee ci li muy def yaa ngi koy déglu ay son nga ñu mën a wax ne bokk na ci son yi nga xamante neex na la moom bu koy way da ci ciy bég da ngay daanu leen jeex na tàgg gis nga moom daal en tout cas daal gars yi li ñuy daanu ci moom bari na soxna si aca yow ba tey yow yaa ñu yóbbu de mu nee na ngi ci biir aca waaw yow yaa ñu yóbbu ci moom ah asalaamaaleykum yaa ngeen jëf na ngeen def ça va bien ana Mor Sumbulu beneen néeg bi la nekk waaw kon ñu continuer waat ah. nee na mi ngi ci beneen néeg bi ñu continuer ah nii rek lañ ko defee asalaamaaleykum eh, waaw mais ndaanaan baa ngi ni yow moom dama lay bëgg ah naka mu yaa kii moo ma indi ba ci kii noo bokk papa. Ah, ah. en même temps di la bëgg. di ma bëggee ba pare nu bokk benn papa. waaw ah. yàlla xam nga nu may def dama ne nii laa nuyoo rek bu ko defee ñu tàggatoo boo beneen yoon ah ayca kontaan naa ci moom mais fa ñuy toog yow nii la ñuy def ayca jaajëf euh, mais maa ngi lay maa ngi lay bëggee ba ba yàquma siyaas bi. Fallou déedéet yow yaay maam Fallou. di la bëggee yow ba mu soxlaa lu mu jàpp dama koy bàyyi. mais heure bi lan la faral di doon fekk euh, ci ci yan nga doon nekk ndax tey dama la bett te bu ma xoolee sama heure jox na ma 17 heures ci lan la doon fekk. waaw heure bi moom ñoo doon fekk ñuy préparé dem répétition affaire parce que nan naa taay pare yaa gën a xam kër ngéwél ngéwél gaa ngi nii dañuy préparé dem répété. mais nah, tey moom da nga maa bett moom dafa doon génn nii rek nga ñëw waaw waaw mais xam nga yëfi jinne la man ak samay mbir rek saa su ne nee naa la yëfi jinne laay def mais tey Modou Soumboulou nga am anniversaire di ko euh, samedi la 14 incha allah euh, Modou tey tolluwaay bi fan la ren mu nekk combien d' euh, édition waa ren moom mooy troisième édition ma ma ma ma ciy bëgg na di ci kontaan lool parce que yokkute dafa am wax dëgg yàlla ren gis naa lu ma gisul woon xam ñu ma xamul te Sénégal ku yokkut da ngaa wàññi ku yokkul da ngaa te yow Mame Fallou wax dëgg yàlla am na loo si xam kon man defuma lu dul kontaan ak préparé bis bi ànd ak ñi ma war a àndal di ci gërëm nag sama waa fan si club di ci gërëm sama waa euh, staff parce que fu ma jëm rek ñoom ñoo fi yokk sant Serigne Touba baax sant sama papa ak sama yaay parce que ñoom lii rek ñoom la ñun bu ñu yàqee suñu yite ñëw naanunu doxunu lu ñuy tere taxawaalu wu ñu bëggal suñu waa koñ rek moom moo tax ñu def li mais mën nañ ko yóbbu rafet wala yóbbu ko trop loolu am na ndax mbooloo bi may gis fii tamit xañ na beneen sax waaw maa fàll bu ma ko fa yóbboon day fees parce que ñooñu xam nañ ma euh, waaye nag euh, ki lay teral foofu la lay kon boo ko defee ci buntu këram yombalal ko affaire bi noonu la fa demee moo tax xam euh, secret bi euh, nga xamante ni loolu nga làmboo ndax dañuy gis euh, sumbulu bu nekkee ci kaw seen yi nga xamante ni da koy def public bi tamit dafay rêver vraiment te dafay wayandoo public bi public bi tamit di la jox ngay jël li naan doone ak recevoir ci wàllum art bi lan la. waaw Fallou li nga doon ak li nga far bokkul xam nga tubaab du ma romb naan yow yaa ko daan wax te li ne fàng kenn du koy jeex dafa dañ ko nàmp dañ ko xam noo ngi koy jàng tamit du ni mën nañ ko. kenn du man da ngay jàng rek ndax ki ngay bëgg ak ki bëgg bokkul nga bëgg ak ki la bëggal bokkul wax dëgg fa yàlla moo tax bu nekk ci aar bi jàng rek jàng rek yow daal jàng rek waaw. ren mu nekk édition am na ay yoo xamante ni surprise lañ ko mën a wax na yoo xamante ni mën nañoo wax ne mën nañ ko yokk maanaam li ñu naan dolli cere yokk yokk ñeex bi bu baax boo defee ko ci nekk pirloo daal di jël tey lan lañ mën a xaar si ci troisième édition bi. waaw tey moom bëgg naa nu xaar yu bëree bëri première bi rek li ma leen di wax mooy. watale télé baa ngi nii lii moom yaakaar naa ne fi ñew ala nak bëgg na ko fi indi waaw ndax ñëw day ñew ñew nañu ndax yeen yéen a xew ci jamm barke que Bamba yéen a xew yeen ku neub yéen a koy feeñal ku gàtt sax yéen a ba mu njool yalla na yalla yalla yagal ande bi ren nak dama bëgg ngeen téla a parce que bëgg na li neub lepp ngeen feeñal ko ndax euh, sumbul bëgg na ñu xam sumbul ba sumbul ci koñ bi ndax nak luma am fi momako may ndax fi la doore sama première édition fi la ko defee ba troisième édition yal nañu yàlla àggale barke seigne Touba kon eh, mais rendez-vous bi heure bi euh, fan la ak lan ngay wax fan si yeen heure lañu wara ñew bu ko defé rek ñu tambali bi waaw euh, fan si mom li leen jox euh, à partir de 20 heures dal bëgg na ñepp ñëw télé bi mom bëgg na 19 neuf heures ngeen ñew nu def reer bu baax xam reeru géwal yow yaa ma gën xam waaw te yéen ay kàppoo ngeen yalla nañu yalla defal jamm bëgg na gaay yi teel ñepp ñëw waaw en même temps di ci nuyu wàll nag sunu waa kër samay doom bàyyi sam papa mu ngi nii di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tëddee parce que nag euh, ku bàyyi ku fàttali la fal di nga folleeku di ci jox dig daje daal sama waa fan si club yëpp ak sama waa WhatsApp sama waa groupe fan si club di ci wër ñëpp. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay bëggee bu baax dernier mot bi tamit euh, xam naa ni ay sant lay doon waaye tamit du ñàkk ne euh, am nga loo xamante ni nii euh, di nga di nga di ko wax ñenn ñi am nga ñoo doon liggéeyal ci ay édition est-ce que ñëw ci édition bi dinañ ci bokk. waaw am na ñu ma doon liggéeyal daaw ak daaw jéem ren yàlla boole ma ak yéen kon yaakaar naa ne kuy wër yàlla ba yem ci yonent bi boo ko toppee dina la woon fi yàlla ne. kon yéen yàlla daf ma boole ak yéen dematuma fenn maa ngi ci yéen pour wax ji terminé man maa ngi ci nga def mooy dëgg waaw yaa ngi ci yéen de. yaa ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci yow. ak ñi ma àndal jeex na tàgg ay ci mbokki internet ñu ngi am mbégte ak contentement bu baax tey nekkoon fii nga xamante mooy Afia 4 ñëw seet si Modou Soumboulou di artiste bu mag ñëpp xam ko ci li muy def man way lool waaye baat bi macha allah di ko ñaanal ab wér ndax yaakaar naa ni euh, li mu bëgg ci aar bi mi ngi koy def te gëm nañu dina yegg foofu euh, ci loolu la ñu joxe euh, tàggatoo yéen ñi nga xam ne yéen ñu safoo ci seen chaîne leader la TMP Events TV ñu ngi leen di béggee di leen jox rendez-vous ci yeneen affaire waaye surtout le 14 lay doon fii lay xewee ci Afia 4 a ciao, caaw surtout n'oubliez pas de vous abonner ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax jaajëf waay